ci première chaîne de télévision privée bu Sénégal yem ak waxtu xibaar yi nees gis ñu dikk ak yéen ci li ci gën a bokk ci li gën a fës ci xibaar yi mbas meeg tolluwaay feebar bi lu tolloog ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñetti cas yu ci am téeméer ak ñeenti cas benn fukk ak juróom-ñett fukk ak ñaar ci doomi aadama ñàkk nañu ci seenu bakkeen ni ki démb xeex mbas mi sax moom moo waral kon ba réewum Sénégal sóob loxoom ci vaccin yi le ni ki démb nag daal dinañuy jot lu tolloog ñaar téeméeri junni ci ay doses yu bàyyeeko ca laboratoire Sinopharm ci teewaayum njiitu réew mi Macky Sall ak ak yenn ci autorité moom ji réew mi di sàkku ci askan wi ñu daal di dugal seen loxo ci stratégie campagne bu vaccination boobu ca diwaanu Kolda foofe nag ñi nga xam ne ñoom ñoo di sàmm yi njàkkare la ñu àndal ndax seeni jur a ngi dee boobaak léegi ndax ay feebar yu leen di laal ñuy sàkku ci jëruñ yu ñu ko wàllu woowee mu saytu ko mi ngoog mbokk yi rafetlu baax seen ànd ak ñun rawatina di taataan xibaar yi fii ci seen première chaîne de télévision privée ñu daal di door xibaar yooyu ak nañu ko junjee daal di wax ci mbas mi tolluwaayuk feebar bi ni ñu koy defee suba su jot ci màkkaanub jëriñ ju ñu denk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram ñu daal di fësal ni ki tey lu tolloog ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay cas yu yees Dakar daal di cee am lu tolloog téeméer ak ñeent ci ñi nga xam ne amee nañu doomu jàngoro ji xamuñu fu nu ko jëlee limub ña nga xam ne wér nañu ca ma nga toll ci ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett at fukk ak ñaar ci doomi aadama ni ki démb ñàkk nañu ci seenu bakken nu ñu koy defee ak directeur de la prévention docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci ñaari junni ak téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett test ñu def ñetti téeméer ak ñaar ak juróom ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jógee bitim réew. waaye am nañ ci téeméer ak ñaar ak ñaar tuddee ay cas communautaire mooy ñu jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ko jëlee walla ki leen ko wàll ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett si malade yi ñu entré woon hôpital walla ñi nga xam ne ñu leen toppoon ci biir kër yi wéer nañu bës ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla ànde juróom fukk ak juróom-ñaari malade ñoo nekk réanimation fukk ak ñaar malade ñoo génn mu ñoo génn àdduna bésu démb alarba fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ak ñu ngi xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wàññi na fanweeri junni ak ñaar ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ñi xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar fukki junni juróom benn ak ñett téeméer ak juróom benn fukk ak ñett wér nañ si juróom ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak benn ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñeent junni ak juróom ñeent téeméer ak juróom fukk ak ñeent si lalu hôpital yi ak si ci ñi xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi mi nga ko ñu wax mbokk yi ci génnu kàdduna taskat yi xibaar bi di Marcel Mendy ci alxames gi tey ci suba la daal di dëddu ginnaaw ab feebar bu ko tëraloon doonoon na ci jamono conseiller technique bu yoroon euh, lii di communication ministère de la justice ci juillet 2015 euh, euh, laata loolu yi tamit wala bokk bañ ca noppee sooboon na loxoom ci lu jëm ci doxalinub lii jëm ci cellule communication bi ñu jagleloon chambre africaine extraordinaire bi nga xam ne moom moo doon atte ki fi doonoon i jamono njiitu réew bu Tchad di Hissène Habré catum 2013 jàpp 2017 moom Marcel Mendy moomee nag daal dinay dëdd nu ñu ko waxee ni ki tey ci alxames gi ci suba ginnaaw ab feebar bu nga xam ne tëral na ko ci sama kàddu président directeur général bu groupe Origine SA ak ñi nga xam ne ñoom ñoo fi liggéey ñëpp di jébbal njaal mi njaboot gi naka noonu itam ñi nga xam ne ñoom ñoo yëngu ci wàllum tas xibaar ni ñu ko junjee woon mbokk yi ci bopp xibaar yi lu jëm ci euh, vaccin bi nga xamante ne nag daal dina yegg si dose yenn ci dose kon ni ki démb ci aéroport international Blaise Diagne ña nga toll euh, ci ñaar téeméeri junni ci li nga xam ne nag moom moo di dose yooyu le loolee am ci teewaay njiitu réew Macky Sall jëwriñ ji xam ne moom la ñu denk lépp lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram jëwriñ ji ñu denk lépp lu jëm ci euh, biti réew ak it kii di ambassadeur bu Chine teewal fi ñi teewal fi kon réewam fii la ci Sénégal njiitu réew mi di sàkku nag ci sénégalais yi ñu sóob seen loxo bu baax baax a ci mbir mi ngir mbas mi mën a teeltu ginnaaw ñu teelu kàddu yum ci yëkkati. suñu jógee si di taxawal lépp luy koom wala alal yoo xam ne soxla nañ ko rek pour wàññi coono doomu senegal ci feebar bi la loolu waral malgré que àdduna bi yëpp taxaw nañu ngir ñu am ay ñakk yoo xam ne war na law ci àdduna bi waaye gis nañu ne ba ñu tàmbalee ba tey réewu Afrique daanaka amuñu benn yoon vaccin yi la looloo waraloon nag ma ne naam ñu ngi ak OMS ñu ngi ci yeneen initiative waaye nag ndimbal na ca fekk loxol borom nañu tibb suñu alalu réew budget boo xam ne daañu jëndi ay vaccin lu mën di jar loolu lañu tàmbali moo waral lii tey may gërëm bu baax nag président bu réewu république populaire de Chine ñu koy wax président Xi Jinping ba ma ko bindee matul weer boobu léegi lii yëpp ñu taxaw si mu jàppale ñu ci société bi defar vaccin yi ba tey jii gis ngeen euh, avion tam Air Sénégal moo dem ba réewu Chine indil ñu ñàkk yi loolu nag lu jara sant la suñu borom ginnaaw feebar bi garab amagul bu bu bu leer kon ñàkk yi dana wàññi lu bare bare ci jafe-jafe yi waaye nag te nga itam pour mu mën a am faaw mu am nañ ko doxale ndax ñaar téeméeri junni ci ay vaccin ñoo fi nekk population bi war a vacciné wu ëpp na loolu waaye ñu ngi wut yeneen i dose xëy na balaa muy ñëw dañuy jiital ci ñi ñu war a njëkk a ñàkk mooy waa kër docteur seen bopp ñi nga xam ne ñooy faj maladie ñooy dëkk ak ñoom ñoo leen di yëkkati ñooñu nga xam ne bés bu ne ñu ngi jànkantoo ak jàngoro ji mooy ñi jiitu ginnaaw ñooñu itam mag ñi nga xam ne am nañu juróom-benn fukki at wala ànd ak jàngoro wala am at yooyu le te nga xam ne souvent ragal nañu bu mbas mi ñëwee mën na indi ngaañ ñooñu lañu ñooñu aussi ñooy cible bi ci topp après nag comme ñu ngi wut yeneen i ñàkk ñi si des ñëpp incha allah ku si ne saa yu ne ministre de la santé ak waa CNG dinañu wax nañ ko war a defalee loolu it dañu bëgg ñu xam ne du am benn njuuj njaaj du am benn parparlu du am benn service camarade maanaam ministre bi tey na lépp jaar si yoon ku ci war a am am ci d'abord parce que lépp dinañ ko tracé ku ñàkk dinañu xam kan la fa mu bokk lan mooy euh, caractéristique mi ngoog mu nekkoon ay kàddu euh, njiitu réew Macky Sall jàppale ni kon laata yeneen ñi dose di ñëw yi jote yeeg si niki démb mi ngi bàyyeekoo ci laboratoire chinois bile di Sinopharm toll ci ñaar téeméeri junni ci ay dose ñu wutali diwaanub euh, Kolda ca foofa mbokk yi ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllub sàmm gi njàkkare la ñu àndal ndax euh, ñu ngay faral di gis seen i jur di faatu bokk ci li nga xam ne nag moo koy waral nee ñu ay feebar yu yees yi nga xam ne moom la fa nga xam moom moo jëm soow ba doon bàyyeeku ci jur gi wàññeeku na bu baax a baax jural leen i gàllankoor ci seen wàllub koom ñuy sàkku ci jëwriñ ji ñu denk lépp lu jëm ci wàllu woowee mu gestu leen ca diwaan ba Bokar Kandé ku ne si ñoom am na tetal yu muy joxe ci yenn ci feebar yu ñuy gis ci gëtt bu nag bi juree ba pare doom bi du yàgg mu dee lan moo waral li nu mel ay laaj yu bari yu nu mel ca dëgg-dëgg am na xeetu feebar yu bees yu sàmmkat yi ne meeku ci seeni gëtt. c'est vrai zone bi miinu ma fi tellement bi ma dégloo mag li ñoom tamit parce que yenn saa yi boo waxtaanee ba mu yàgg danga naan naa def échange yéen tamit est que am ngeen lu ngeen def commentaire wala ngeen poser question ci seen i question ñuy poser wala seen contribution da nga gis ñu wax la loo xam ne yow xamuloo ko woon. mu doon ab daji weccoo xalaat ci lépp lu jëm ci wérgu yaramu mala yi feebar yu bari lool ci gëtt yi mooy lu ñu dul werxanti fii ci biir du chaque jour presque am na ay feebar yu génn fekkee éleveur bi ci boppam xamu ko boo indee aussi vétérinaire parfois day am jafe-jafe pour xamaat feebar boobu feebar yi bari na ni ba. ni Casamance zone de di zone boo xam ne dafa bari ndox la bari ñax nawet bi donc feebar yu bari nag yi dañuy jàkkantoo yu mel noonu donc vraiment jot na aussi ñu fexe jàpp ci ba ci gox-goxaat bi ne. Euh, nit ñi gën a xam feebar yi jàpp mala yi. sàmmkat yi nekk ci njàqare feebar yooyu lu ñu gis mooy day wàññi seeni production ci wàllu meew te di infecté qualité bi. nag bi itam il faut nga xool li nga xam ne moo koy gàllankoor pour bañ a am meew boo xam ne day yàqal nit ki parce que ñaw feebar boobu ñuy wax te di dafa dal nit di dal nag bi su ko dalee nag bi dafay maanaam day day avorté. doom bi su amee ëmb du jàpp du yàgg wala su demee ba mu judd aussi doom bi du yàgg du dund lu yàgg. tey boo seetee tey euh, exemple ñu am benn litre rek boo xam ne dafa jóge ci nag bu sellul boo ko defee ci 300 litres mun na ko yàq te boo seetee tey euh, feebar bu mel ni tuberculose say day jàpp nag yi day jàpp aussi te feebar boobu tamit boo seetee mun na jaar ci meew bi. ab campagne de vaccination bi ñu dal di tàmbali ay téeméeri téeméeri nag nag lañ ci ciblé mu doon ab initiative bu Enda Énergie di jàppale sàmmukat yi ñëpp gis ne baax na lool waaye tamit war nañu gën a gëstu nag ci feebar yu bees yooyu dal mala yi fii ci diwaanu koldaa Bokar Kande ñu gërëm ko mbokk yàddu ci leneen ci wàllub xibaar ak directeur général bu office national euh, jëm ci wàllub assainissement file ci réew mi daal di amal ñaareelu visite de terrain mi ki démb ci àllarba gi moom docteur Ababacar Mbaye daal di nay dem ca station d'épuration bu fare ca Cambérène ak it euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci station wu pompage bu Dioukhop ak euh, Gonaas ak yeneen i diwaan yi nga xamante ne kon liggéey ba la fa doon saytu moom directeur général bu ONAS nag jàpp ni liggéey yooyee a yemb ngir nag lu jëm ci wàllub assainissement uh, fii ci réew mi gën a mën a ñoŋ bokkoon na ca uh, boobu lépp uh, ndaje kii di Babacar Tambédou ak Pape Samb ci caméra bi ñu teewlu leen. ci station d'épuration bu Cambérène fa la bi nga xamante ne nii moo nekk ci bopp lépp lu jëm ci wàllum assainissement fii ci réewum Sénégal yow lance daal di tàmbali visitam docteur Ababacar ak ay équipe technique am rek daal di wër boobule bërëb ngir saytu rek ana fu travaux yi yokk station boobule daal di toll ñu xam ne rek 90 pour cent ci ouvrage génie civil daan nañ koy taxawal. mais li ci des mooy euh, li nga xam ni li ko bloqué mooy situation bi actuellement Covid parce que déplacement bi aussi au niveau de la des euh, donc euh, ça pose un, un réel problème. su ñu xoolee ci partie foofu partie station d'épilation la partie émissaire parti émissaire mooy ñaari fànn la ci côté bi nga xam ni am nañ ay ay réseau yu ñu war a canalisation yu ñu war a def sur 15 kilomètres. Euh, déjà en fait on a la moitié sur 5 kilomètres 2,5 kilomètres yi déjà c'est fait. ak gannaaw foofu ñu daal di dem fële ci Parcelles Assainies na ko noonee daal di taxaw ci travaux terrestres lu ñeel wàllum émissaire bu kamba Cambérène yemuñu foofu rek directeur général bu ONAS daal di ñëw itam fi nga xamante ne ni moo di géejuwaay ci station Diouroup ak Gounass naka noonee réseau yi nga xamante ne ni mooy traité lépp lu jëm ci wàllum ndox yu salte yi nekk ci Pikine Est waaye itam ak Pikine syndicat daal nañ koy saytu. dañuy xool ci réseau yi am na ay yu ñëw ci biir ci réseau te kooku day impact fonctionnement fonctionnement euh, kii bi fonctionnement euh, station yi donc kooku vraiment c'est c'est une problématique amul vraiment drainage des eaux pluviales foofu donc il va falloir avec euh, un partenaire les autres partenaires comme Promoville am nañ fa projet dañu xool naka la ñuy collaborer pour que vraiment problématique boobu aussi ñu jël ko en charge mais problème surtout mooy ci réseau station d'eau pluviale am nañu vraiment une perturbation par gestion eaux usées que amul réseau ci côté boobu nekk na problématique Donc euh, vraiment c'est un département euh, avec euh, vraiment l'accompagnement du ministère, avec les autorités financières et vraiment sur les orientations du, du président de la République. Peut-être mën nañu évidemment aboutir ñu am en fait financement pour ñu jël vraiment les préoccupations pour ñu def un réseau d'eau usée. boobu lépp visite nag ñu daal di koy jeexalee rek ci station pompage bu nga xamante ne nii mooy traité lépp lu jëm ci wàllum ndoxum taw yi nekk ju Dominique fi nag techniciens yi dañoo may jafe-jafe ngir am accès ci yenn réseau yi bokk ci li ko waral rek ay bërëbu jàngukaay yu nga xamante ne dinañ koo tabax ci kaw bi lépp réseau ngir nag saafara lu nu mel rek ki nga xamante ne nii moo ji teewoon daan ne xam ne ni dana amalay waxtaan ak ñi nga xamante ne nii sax ñoo jiite gox ak goxaat yi ngir rek li nu mel ñu mën ko saafara. dañoo war ànd liggéey parce que su ñu waxee ni collectivité territoriale c'est les communes dañoo nekk démembrement de l'État donc je crois que war nañ def ay démarches dem ci ñoom ñu xool naka la ñuy waxtaanee ñu dem ba tëral ay protocole d'accord yoo xam ne dana tax ñu wax ne ah commune bi lii kat mën nañ contribuer ci li nga xam ni mën nañu vraiment dimbali ci gestion ouvrage parce que investissement am na solo lool avec li nga xam ni def nañ ko ci ay ay ay financement mais li gën a am solo mooy investissement yooyu ñu def naka lañ koy mën a gérer mu respecter durabilité yi. mu nekk ñaareelu visite bi nga xamante ne nii nag directeur général bu office national bi nga xamante ne nii moo yor lépp jëm ci wàllu assainissement bu Sénégal daal na koy ni gannaaw bu ñu ko tabbee ci bopp structure bi lee lim ci jublu rek gën a xam li nga xamante ne nii moo ñeel wàllu assainissement fii ci réewum Sénégal rawatina Ndakaaru waaye itam ngir gën a jooyanti lu ni mel. Babacar euh, Tambidou ñi lay itam ña ngay wéyal seenub liggéey mu ñu fare ci ANPEJ lëkkaloo ci coopération espagnole ak kuréel gi nga xam ne ñoom la ñu denk lépp lu jëm ci xeex gone yi wutali biti réew jaarale ko ci yoon yu euh, jaarut euh, ci yoon daal nañuy dem nag financé lu tolloog fanweer ak juróom-ñeent ci ay ndaw nekk ca diwaanu kon ndargee ndargeec ak Matam lañ ca jublu nee ñu mooy fexe rek ba ndaw yi des file ci réew mi liggéey fi bañ a wutali biti réew rawatina di ko jaarale foofa Moussa Ousmane Diagne Abdou Boy lañ fay fekkee. fanweer ak juróom-ñeent ci ay ndaw yu yore seen ay projet te ñu sélectionné que ñoom nag jot nañu ay koppar yu jóge ci waa ANPEJ ndaje bu mag bi nga xam ni dafa jublu rek ci naka lu ñuy fexe ba dooleel xale yi ci seen wàllu xëy ci région bu Saint-Louis ak bu Matam ANPEJ ak ay partenaire am ñoom nag jël benn fonds bu am solo ngir nag jàppale yenn xalaat yuy jóge ci askan wi. renforcement auto emploi des jeunes mooy en tout cas gën a euh, taxawu ndaw yi pour ñu gën a am xam-xam ak ay matuwaay pour mën a demal seen bopp donc projet bi nag ay pàcc yu bëri la am na formation d'abord parce que ay may conseil en emploi yoo xamante ne ñoo topp ndaw yi ci choix yi choisir euh, former leen accompagner leen ba ñu yegg si ci phase bi nga xam ne euh, nu mu tudd financement bi la wàllu financement bi tey nag moo ñu fi indi. kii di njiitu coopération espagnole ak tamit ki nga xam ne mooy yore organisation internationale des migrants ñoom nag lu lool li nga xam ni moom la waa ANEJ di def ci ndaw yi. j'espère que le jot tey ji seen financement dina leen may tey ji ñu mën a demal seen bopp ci liggéey bu nekk. Pour lutter contre la migration irrégulière, il y a euh, immigration clandestine euh, li koy euh, dindi rek mooy ñu fexe ba di financer xale yi buñ ko defee nag dina am solo sensibilisation bi ñëw aussi tamit il y a aussi la lutte contre les réseaux de passeurs qui est aussi un autre pilier mais nous pensons que si tous les piliers travaillent ensemble di fàttali ci phase bu njëkk bi nga xamee ni dafa jublu woon ci euh, centre de formation yi ak jàppale li nga xamee ni rek moom moo jëm ci wàllug financement wu ndaw yi nga xamee ni coopération espagnole ak gouvernement bu île Baleares ñoom ñoo ci doon euh, yëngu lu tolloog téeméer ak ñaar fukk ci ay ndaw yu Podor ak yu Matam ñoom nag euh, jotoon nañu am formation ci wàllu entrepreneuriat. ngook ñu wutali diwaanub Sédhiou ca foofa nag ñu wax ci bis bu njëkk bu koorub euh, catholique yi leen ni ki démb nag bëri woon nañu lool ñi nga xam ne wutali woon nañu lii di église yi bokk ca la ñu leen sant mu jëm euh, ci wàllub euh, ñaan waaye itam woor ak lii di saraxi nee ñu daan ca dëppoo rawatina nag ñaan gi ndax nee ñu lañu bëgg mooy mbas mi daal di génn ci réew mi rawatina ci àddina wax ngel képp Robert Diandi ci diwaanub Sédhiou catholique yi nekkee ci àdduna si sépp nar a amalee catholique yi nekk ci Sédhiou dinañu tàmbali seen koor àllarba ji fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru février bi ñu nekk mu doon nag ñeent fukki fan yi nga xam ne dañ ci nar a nekk rekk di woor di ñaan te di saraxe. ñeent fukki fan yu catholique yi nar a woor woor bi wooru catholique dañuy ñaax si ñu dellu si sunu xel ci yàlla bàyyi bi ñu sàkk. si suufeelu wante également ci tuub tuub mais changer suñu jëfin changer suñu waxin changer suñu xol yi ni jàngoroy covid 19 lëmbee àdduna si sépp jamono yu ñu toll tax na ba ñu jiite jànguy catholique fii ci réew mi di ñaan taaliba yépp ñu farlu ci woor ak ñaan ngir rekk yàlla mën ñoo tàggaleeg jàngoro ji dañuy ñaax suba ba ñuy duggee si koor bi képp kii di catholique rek mu mun a woor wante mun a ñaan tamit pour mbas bi jóge fi jóge fii si Sénégal jóge si àddina bi lépp donc carême bu bi. laataa ñuy dugg ci koor gi naka tuut tànk yooyu nga xam ne ñu ngi nekk ci presse scolaire bu fii bi 5 de Marie sol nañu ay déguisement màggal fête bu ñuy mar bi gras ci seen biir kuuru l'école bi ndax jàngoro ji tax na ba mënuñu woon wër ci biir dëkk. chaque année doon génn dugg ci service yi yóbbu xale yi ñu gis seen faaraay ci service yi mais nag. laajte ñu ne ñu yi dinañ dem ci seen biir jàngu yi ngir ñu defal leen dóom ci seen jëy buy wone rekk ne ci suuf lañu jóge te ci suuf lañuy ñuy dellu. Robert Diagne di ñu gërëm ko mbokk yi di wax ci wàllu tàggat yaram benn ponk la mu di compétition bi di Coupe d'Afrique des nation bu ñu jagleel ndaw yi nga xam ne seen at euh, yemagul ci ñaax fukk ñi nga xam ne naka ñoom ñoo koy dalal di waa Mauritanie lajj la ñu ubbee compétition boobee ndax waa Cameroun ñoo leen daal di dóor benn bal ci dara ba tax na daal ñoom kon dañoo dugg ci mbir mi ak euh, lajj ki nga xam ne moo di si la def na ci ab euh, reportage ñu teewlu ko. kan euh, bi nag euh, huit équipes ñoo ko doon jongante waaye nag ren mu changé loolu nag muy guleet euh, gannaaw fukk ak ñaari équipe yu koy jongante Mauritanie nag bi dalal bi les compétition match bu njëkk da ko perdre ci dimanche bi ci digganteem ak Cameroun moom nag fu mu toll nii faaw rek mu gagné deuxième match am pour mën a continuer ci compétition bi. ba équipe Mauritanie c'est la même chose pratiquement équipe bu nekk ñëwoon Sénégal si tournoi de qualification équipe bi mun naa am ay occasion dafa mun na football mais du dugal te compétition bu mag moom foo koy jouer foo nga dugal tey moom dañuy football contre Mozambique amuñu choix il faut que ñu gagné sinon day métti si ñoom bon euh, douze équipes moo am mooy bii mooy première édition. CAN U20 bu am douze équipes assez souvent huit équipes moo ñoo doon joué léegi il faut que pour qualifier deuxième tour il faut nga bokk si ñaari premier wala si trois meilleurs deuxième yi donc mun nga am benn victoire jàll donc mu dal nii mun na xaar ba dernière journée mu mun a jàll. Sénégal nag ci wàllam bii les compétitions teewoo ko muy rendez-vous boo xam ne amoon na fa place bu ñu sukkandikoo ci nga xam ne moom lañ tàllal suñu micro moom sax mu gis ne niveau tournoi bi Sénégal mënoon na fa joué premier rôle yi. journée mu mun a jàll mais boo xoolee bu baax. dangay ngay am ay regret moi en tant que sénégalais dama am ay parce que boo ma gisee équipe Sénégal ma gisee équipe bi fi nekk fi nekkoon final wala au pire des cas dañuy football demi final. mais maintenant du dund si nañu kaan léegi dañuy jëm a pour génération boobu du màgg parce que bon soo participer kaan ak coupe du monde lu si gën a am intérêt mooy xale yi dañuy grandir un jour comme Crépin Diatta certes am na talent mais lu ko gën a dimbale mooy football na kaan junior. coupe du monde junior. 22e coupe d'Afrique des nations bi nag euh, ñi nga xam ne seen at tolloogul sa ñaar fukki at dina jeex le mars bi ñu dëgmal ñu ñu koy amal nag jamono ji sa Mauritanie euh, Sénégal nag lu tax teewul ci biir tournoi euh, mooy dafa ñàkk ci tournoi IFOA bi nga xam ne moo ko doon dalal fii ci Sénégal te Gambie. mi ngoog loolee sax ndax képp pàcc bu njëkk ci xibaar yi ñaareelu xaaj bi mbokk yi ni ngeen ko xamee li gën a fës ci xëtu njëkk yenn kaay ñu ànd ceeg Moussa Moussa Sène kan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def waxu nag lu ay di jàmbat ah bisimilah yi jàmm la solo yéene kaay lañ koy xëy daal di doore mu ni nag de lu toll ci deux cent mille nag ci ay doses lii nga xamante ni nag moo di vaccin bi di ñàkk bi ñu doon xaar njiitu réew mi ni ki démb daloo na ko ca ay AIBD yamul ci loolu de te yéen xam ngeen ni séntu woon na lu toll ma ne ko ci six millions ak lu teg ci ay doses ñàkk bi nga xamante ni daal ñi ci nar a mucc yëral yéene kaay bi am ca lu la leer bu njëkk xaaj bi nag ma ni ko la jot ci 200 millions yee noonu yéene kaay bi dellu di ñu xamal ni ñu daal boo yëree ci biiram dana la wax nag ñan lañ ca fa séene ko daal di amal ñàq boobe noonu nga xamante nii ma nga bàyyi koo ca ma ne ko réewum Chine yëral yéene kaay bi am ca lu la leer vox pop ni ñu nag li leer ba leer moo di lan amuñu nag loolee ni tiitaak ak njàqare ndaxte nag boo ko xoolee ba ca biir ah kañ nañ ko de te wax ni nag nag vaccin bi nga xamante nii ah ma nga daal di bàyyi koo ko jàpp nañu ni ni wóor ndaxte sax de boo ko xoolee daanaka téeméer boo jël nee na juróom-ñaar fukk ya ba jàpp juróom-ñeent wér nañu ni nag ma ne ko mën naa def la ñuy xaar ca moom di vaccin chinois bi te OMS nag la mu daal di joxe ci ab charte du leen lu dul nag ma ne ko 50 pour cent minimum yëral yéene kaay bi di vox pop am ca lu la leer nañ tey buñ ci daal di desandee bari na ca ñu daal di yëy yàbbi waaye leneen lu nga xamante nii nag de danañ ca duut baaraam lii quotidien yéene kaay bi moo xëy di ko xamle mu jëm ci wàllu nag ko daal di di Ousmane Sonko di député bi lee yéenekaay bi di ñu xamal ni ñu nag député ni ki démb ah juuxa jalaa ñoo am na fa ndaxte nag boo xoolee ba tey ci biir yéenekaay yi xam leen nañ ñu ni dee lu mu ca mënti daal ma ne ko démb am na ca nag ma ne ko coow lu fa daal di jib waaye nag ko wax ja nga xamante ni dem na tamit ci diggante député ak moroomam ñu ni wax ja de weñ ca dal daal di dee Cheikh Bamba Dièye di wax ni nag x ci plainte bi nga xamante ni ña ngi ko cay wax am ca la nga xamante ni dañ ko taati ruumbalaat wala déet yëral yéenekaay bi ndaxte nag de moom moomu yëkkati naay kàddu te xelam daf ca daal di teey tey opposition bi dañu mujj daal di boycotté le quotidien yéenekaay bi moo xëy di la ko xamle ni ki démb ca penc ndaw ma la mbir mi daal di xewee yéenekaay bi nag di Les Échos di ñu xamal ni ñu ah yëral yéenekaay bi ndaxte nag am na ci lu jëm ci wàllu immunité parlementaire ba tey mbirum Ousmane Sonko ak ko commission ad hoc bi nga xamante ni ni ki démb nag ko jur na fa daal di coow yéenekaay bi Les Échos bu randoo nga teg la tribune yéenekaay bi dellu di ñu xamal ni ñu de ay kurpañ rek moo fa daal di jugul ca assemblée nationale waaye lu ko mooy nag wax joo mën a dégg rek dégg nga ko fa mboot Mbodj di ñu xamal ni ñu daal li ñu daal di introduire ci éléments yi nga xamante nii de ma ne ko bokkul ci dossier bi yëral yéene kaay bi kon mbir ma dafa am ak lu bël wala boog ak la labaj gu ca amam déet yër ko yéene bi di turbinaam ca lu la leer lu mu ci mënti doon daal ma ne quoi ah, kii di ay miru ñing de nee na dañ ko mujj daal di rawale de ci principal ndax malaise Clédor seen dañu xamal dañu Sénégal de ko moom fi mu toll nii mënta nekk nag ku réew mu nga xamante ni buur a fi nekk ak i dagam di buura ka bu mi l'observateur yéene kaay ci seetlu bu mag bi di ñu xamal ni ñu daal mbirum Ousmane Sonko yéen nag ma ne ko tey daf ca waram déet ndaxte nag diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko mii ko mbir mi am na ca lenn loo xamante nii de ah xamaguñ ko de ndaxte nag boo xoolee ba ca biir ak salon ma ni ko massage boobu yéen ak raggu da caa amoon di sangu la bain waaye nag yemul ci loolu de wax nañ lu jëm ci wàllu serviette ya waaye nag yéen kaay bi dellu ñu xamal ni sax de wàllu pilule sax dem na ci biir Sidi Ahmed Mbaye nag ma ni ko avocat ak certificat médical bi lépp yéen bi dellu si waat na ci yër ko moom am ca lu la leer libération yéen kaay ni ñu nag déggaguñ ko ci kan la ñuy jàpp ci mbir mi de dik nag fi mu toll nii ko dugg na ci caaxi Sonatel loole nag ko bokk na nag ma ne ko ci arrestation yi nga xamante ni yu yees la ci mbirum nag ku de mort yi nga xamante ni ñu ngi koy wax jëm nag ko ci kilifa yi yëral yéen kaay bi ku yàbbu ni xalaas laas yéen kaay ni ñu dikk ba tey ah ñu ni de ma ni ko ni ki démb ko dalal na de ki nga xamante ni moo di kan jàngalekat bii di Alioune Badara Dia li ko sabab ak li ko waral nag du leen du dul ko yee fitna ji ko yéen kaay bi ñëw nag ko ci soxnas Biram lay Diop bi nga xamante ni de coow lu jëm ci wàllu mbirum Ousmane Sonko li ma ni ko borom këram ko moom de uute ko yër ko moom yéen kaay bi am ca lu la leer nañu tàbbi ci stade mu ñëw nag ci lu jëm ci wàllu tàggat yaram yër ko moom mu àddu ak ma ne ko juif naka noonu huitième de finale yi nga xamante ni ñeel na wàllu ligue des champions bi naka noonu suñu làmb ñëw di ñu sampu laaj boo xamante ni ñeel na kii di Boy Niang 2 xamle na ni nag ba xam ab xeex da koy taxawal ci digganteem ak tafaatinam déet ñu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari bu ko kenn ngëpp na ko ñëpp camp rek as lëf ci yéene kaay yi jaajëfal ko bu baax moom Moussa Moussa Sène ci noonee mu ñu li gën a fës ci xëtu njëkk yéen kaay gërëm leen mbokk yi ci teewlu gi ci seen première chaîne de télé privée bu Sénégal jaajëfal ñu jàpp ci xibaar yi 19h ak 20h incha allah yeneen jotaay ak la rédaction laata loolu ñu bàyyi leen ngeen wéy ak suñu ay programme jaa ngeen jëf